Sono qui. Yeah. Sono qui. di leen ziara di leen bégeeti. tey émission bi tey fii lay amee ci ñaari tali. Oh. waaw ak Saana Balama Kumbalin fi xaa leen ñu doxantu tuuti ñu laaj gaay seen avis ci ballon d'or ma ne ñëw yow topp ma waaye kaama laaj la. kaay ma laaj la kaay yow laay laaj man yow laay laaj yow laay laaj yow laay laaj dama lay laaj nga waxal ma tuuti ci ballon d'or bi rek tuuti rek. ah ballon ah ballon d'or moom Sadio Mané ko mérité moom. ah nan mérité. mais saison saison saison bu mu def. saison bu mu def kay moom moo ko war a jël. parce que dafa jël dafa jël euh, Ligue des jël onze onze onze lii nii onze euh, onze d'or jël euh, Premier League Premier League waaw mu jël lii nii euh, meilleur buteur co-meilleur buteur ak kii nii Moussa Salah ak lii loolu moom lu mu saison moomu def moom année bi moom moom moo mérité ballon d'or. yow da gis ni kon Sadio Mané moo moom ballon d'or. waaw ah, moo mérité de. li nga nekkul Sénégal ah ah. mérité Mané Mané ko mérité. waaw ñu lay gërëm noonu. man Seydina. Seydi Seydina Koli. Seydina Koli jaajëf Seydina Koli bëggee xaaral ñu dem xooliwaat gars yi. Birino Birino bismillah. salaamaaleykum. sama gars yi ci ballon ci ballon d'or bi laa bëgg a wax ballon d'or bi. yow laay laaj yow di nga laaju ma ko wuy ma Bruno kaay nii Bruno laaju ma ko. man maa ngi tudd El Hadj Dieng ñu may wax GP. GP. noo gisee ballon d'or bi. ah bi léegi man ni mu ko gisee mooy que léegi les africains dañ leen génne ci affaire ballon d'or te def ko entre ñoom ñoom ñoom européens yi quoi. waaw. Messi mérité na ballon door bi wala mérité wu. non si Messi mérité na ko mais normalement Messi bu ko jëlul. Sadio Mané il doit être le deuxième position loolu loolu mooy yoonu football tey ñii da nga gis ne ñoom bëgguñu africain yi war na nañu seen bopp kon buñ koy defati bu buñ ñu si boolee ci daal parce que ñun ñëpp Sadio Mané lañ jàppoon moo koy jël Sadio Mané performance bu def Van Dijk def ko et puis coach Liverpool bi bëggu Sadio Mané carrément la génn Van Dijk moo ko war a jël wala Messi il est raciste parce que Sadio Mané lu mu ko satisfaire euh, Van Dijk ko loolu. Sadio Mané il fait partie sur les grands joueurs du monde deux grands joueurs du monde instant bi moom ak Léo Messi la. ne lii doon laaj ñaari tali am na rap ne leen amul géej waaye noonu la bëree ñu saf xorom nigga bëri ñu amul géej waaye noonu la bëree ñu saf xorom nigga ma life nigga dóor gaynde dóor gaynde ñaari tali ëpp salaamaaleykum Bagoor naka waar. nice yow ban rapport mooy sa rapport. man <laughs> ah man amoo rapport ah man rek maa ngi ñooy sama. amoo rapport. oui doo def benn rapport. non non non non. jaajëf waay bëggee jaajëf émission bi noonu la commencé ay affaire de rapport salaamaaleykum grand na nga def. maaleykum salaam yow yaa tudd. my life. my <laughs> life. nice picture ah. oui. nice picture. mooy yoon. nice nice yaa ngi nice instant yi. gis nga de. fii mooy. ñaari tali. fii kan moo fi nekk rappeur bu gën a mag. kul diis la ñuy xam ah. waaye mooy rappeur booy bu ndaw am talent moom la ñu ñëpp bëggee ñaar talib Grand Dakar benn tali yow loo xam si rappeur boobu noonu. lu mu rap lu mu lan la par exemple wax ma ci benn boo xam ne jàpp nga comme mooy rappeur bu gën ma. am na lu ma gën a marqué si rap est ce que écran plat boobu naan est ce que xam nga mooy son écran plat bu ma si el bi foog ne ngaaka laa et góoñu taqatuñu ñëpp a xamee naqa la jigéen mi indi baa léegi jigéen di karka la mais tey nga fëgg ba mu yomb gën a barré la minute ëppal mag seen as wuyoo kooba loo war nga koo baax gis naa ku live ko am jëkkër ba na boole kook far lépp booy fi ëmbal amuñu xaw reewal na maag tey foo dugg mu ne fa faax. jeex mais xanaa da ngay rab. non du ma rab mais maanaam booy bi muy bind moo neex a ba doo ko déggee sa pour nga nekk si. yow da nga nuru ku bande yow gars nekk si dëkk bi di jaay garaaw garaaw la. xanaa gisuñ la non maa ngi live ak ni ak kudd tout est possible quoi. la demee nag. maa moo ngi nii yóbbu ma si Kuldis. Kuldis kaañ demaale am na benn bërëb muy toog ñu naan ko. benn axlu bi my life. kaañ demaale am nuy gaay a boy cool this nigga. jot yomb nigga ah du jot yomb nigga du jot yomb nigga yeah du jot yomb nigga ah li ñuy def di tëb di dal di baaku def naa ko romb barki dem ci big bul dee gën a jekku bit bi gën bi yéeme di gën a gën a mën a faj si big nga ne foor xanaa jéembe zéro ragal li nga xëj bi bu dagul force si dig et puis dama wóor li ma yore man ñoom yoruñu yomb diis polyvalent ci bit fépp laa mëne sopison bi cuub bi di ko jot yomb diis bu di ko def fàng ne ñaar bi ëpp fës fépp comme tàng na dama indi ñaari seexi dooj drapeau bi yokko jëre doole ñeex bu ma ko gëm mu raake foog beneen capitaine bu dur ku yaate li ngay wane laa gisul ni nga fiche le camp sama talent ay euro la duma franc sama plan tanc booy la duma grand 2017 ou jamais bi ñu bamtu waat ko aca déglu rek nangu man bandi la ba woon kaama wan la naka la da ngay préparé ni nga man pare naa buru commerçant ñu ba nangu xare naa dama bind ñu koy basi laaj ndax xare la dama mën a raaf ni ma a Mesdames, Messieurs, bonsoir amis téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bienvenue sur la stv Aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les alchemins, à partir de 14 sur la stv nous illustrons les bienfaits du hip-hop à travers le graffiti, le MCing, le DJing. C'est vrai que ces derniers temps, on a un peu délaissé le graffiti, le, le DJing et le, et le, et le le, et le MCing. Hein. Ah non, non, non, c'est pas le graffiti, le dancing et le MCing. Mais le MCing, il est toujours dedans. Parce qu'il y a plus de rappeurs que de Sénégal. Il a toujours mon téléphone pour me rappeler. maa ngi yërëm sama bopp di wax sama bopp chaque jour repose en paix Pape Sidi. baal leen ma dama doon naan café léegi mu tuuru si quoi et puis c'est naturel quoi c'est pas grave et puis sama montre mais dinañ wax ci kanam tuuti parce que montre original laa yor euh, Sénégal 16 d'habitants la. il y a 17 millions de rappeurs non mais loolu maa nekk chaque jour Pape Sidi yow woo naa la jotuma la yow Pape Sidi jëloo yow Pape Sidi am naa concert yow Pape Sidi rajo yow man dama sonu baay góor après su ma jaayee garaaw ut beneen numéro ñu ne non am na numéro boo xam ne boo ko si wooyee nga koy jot taman man mënu ma changer numéro loolu dafay compliqué donc maa ngi maa ngi maa ngi wax sama bopp repose en paix yàlla naa dem aajana man tam. mais yéen tamit soyez les bienvenus parce que chaque émission nous tentons de vous donner des choses exceptionnelles que vous pouvez vous dire ah ça je savais pas ah ça je ne connaissais pas mais je vais le faire partir je vais de telle sorte que ça fasse partie de ma playlist on était venu indirectement à Ñaari par le biais de Brisk Bomb mais aujourd'hui on est revenu pour un rappeur du nom de Kool 10 que je vous présente Kool maa ñu ngi dolli ziar Pape Sidi. ngi si jàmm. sant bu baax. kun xanaa da nga am loo doon def ba gel bi gàjj la. sama doom moo ma gàjj. déedéet du sa doom am na wey toll nii. ah <laughs> yaayam boobu. mi ngi woon ci biir. ah voilà. kun. waaw <laughs> eh, nekk fii di souffler ay réponses sigil sigil. sa bopp gànd bi nga ne da ngay siffler ay réponses Brisk euh, euh, autant pour moi Coldis maa lay fay bu baax Pape maa ngi bu baax di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan si aaru mbedd di la siyaar encore parce que c'est pas facile nga def déplacement bi ñëw teew maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi seetaan Coldis ngay am foofu. le 30 novembre bi passé da génne album mais album bi laataa moo génn yàgg nañu la dégg yàgg nañu bàyyi xel ci sa carrière ak ni nga koy étalonné depuis quand tu as commencé à Euh, depuis 2013. 2013 Waouh. 2019, ça fait 6 de ce temps-là, tu mais avant de sortir l'album, on a fait pas mal de trucs. On a participé à beaucoup de concours. n'a pas sorti de mixtape ni de maxi ni. Non, non, on a juste sorti des singles. def nañ ay pas mal de singles ay séries de freestyle et tout quoi. Mhm. yeah après soo ko génnee album bi quoi. cool. man daal xam yow. nu la yàlla dimbalee ba nga bokk si concours yu bëri ban nga si mës a gagné. balaa yi ma si gagné bëri na de. gagné naa est-ce que sax. non bien sûr nii gars nii. gagné woo ay concours koñ yi rek. non même pas même pas. ban nga gagné. boo xam ne Dakar xam nga ko. Dakar Sën Ndeye Saïfa je connais. waaw foofu laa dooree waaw pas benn yoon sax gagné nañ ko gagné waat ko. waaw am na yeneen concours ay kaay wane sa talent DJ Taf Patte d'Oie concours mu doon organisé à la rajo jël nañ ko participer nañ aussi ay concours yoo xam ne on a tous été on a été finaliste yooyu yëpp quoi mais yàlla def na jëluñu ko comme Wacky Wurus challenge flop fois xam nga waaw def nañ deux fois final flop def nañ final Wacky Wurus def nañ daal concours yu mag yi nekk fii yëpp participer nañ ci dem nañ ci final quoi. lan nga bëggoon bi ngay dem ci concours yi da nga bëggoon gars nga bëggoon dem coûte que pour gagner. waaw parce que man dafa mos am benn philosophie bu nekk ci man mooy tàng maa ngi toog fii di rap peut-être gars duñ ma xam quoi mais damay dem fi ñu koy wanewee ma ñëw def ko foofu quoi euh, but bi nag nekkul mën nga gagné kom mun nga bañ a gagné mais mën nga bañ a après ñu ràññee la ci loolu moo nekkoon objectif bi quoi mooy dañ doon wanewu rek te affaire bi doo toog di woote wala ngay xaar nit yi ñëw mais da dem jëli ko quoi loolu moo nekkoon objectif bi moo waraloon ñu bokkoon ci concours yooyu yëpp quoi te ba fii alhamdulilah rëccuwuñ ci lenn quoi parce que balaa ñu dugg ci album bi nga génne le 30 novembre tu as fait 6 ans dans le hip hop tu as fait concours par concours dafa mel ne mbër muy door a tàmbale rek. waaw participé nañ aussi ci album yenn gars yi 23 3 par exemple bokk nañ journal rappé def nañ affaire yu bëri waaw ci diir. en tant que correspondant depuis ñaari Italie. boo waxee Cool 10 gars xam nañ ko. mais maintenant aujourd'hui les gens pourront prendre le nom qu'ils entendaient teg ci visage cest à nit ñi dinañ xam kan mooy Cool 10 wala ñu dégg ko mais tey. dañ ci xam ne kii la te lii moom moo nekk si xelam. et pour cette euh, cette épreuve sois rassuré dinaa la poser question ba sa seen waa koor ñëpp mere ma <laughs> euh, compétition yi nga bokk noonu. Uh-huh. Euh, dafa mel ne mbër. en fait bu nekk si làmb bëgg a arriver en roi des arènes. mbapat ci compétition yi wala jaar ay mbapat pour mun ñëw arène. ça fait six ans lan nga jàng si en tant que underground bala ngay génne sa album. la laa si jàng mooy affaire bi liggéey quoi dafa laaj liggéey pour nga egg fi nit yi di egg parce que c'est pas facile da ngay gis benn Pape Sidi Fall peut-être télé comme ni nga ko waxee sànq gars yi bëri dañuy woote di xëccu pour ñëw alors que jotagul quoi alors que boo toogee di liggéey liggéey bi su baaxee lu mu yàgg yàgg yàgg bu jotee gars yi dañuy ñëw quoi loolu jàng naa ko ci surtout quoi jàng naa ni tamit tant que yaa ngi am talent gëm sa bopp di liggéey rek affaire bu jotee day yomb quoi. man maa woo sa manager démb ma ne ko dinaa ñëw aaru mbedd suba bu ma ñëwee daanu tourner loo xam ne dina intéressant pour la sortie de l'album parce que je pense que tu le mérites je pense que j'ai écouté ton produit qui est excellent mais on va y revenir tout à l'heure balaa ñuy dugg ci produit bi da nga may wax lan mooy Cool dis waaye yow da nga bëggoon tànn turu mbër amoo ko parce que 10 amul njëriñ si rab non même pas Cool 10 olof day faral di wax tekk boo gis am na lu laaxut ci ginnaaw. tubaab 10 baaxul olof moo wax loolu nit danga nga war a woyof waaw beneen beneen foofu leneen la mais xaar mu ñëw ba pare. dafa ne wala xaar de soo waxee lu ma comprendre dama koy leeral de. man faalewu ma la waaw coow jibul dafa ne tekk boo gis tekk boo gis am na lu laaxatu ci ginnaaw. tubaab bi ne la méfie-toi de l'eau qui dort man nag naturellement dama kul nii si jëmm mais dama diis ci xel quoi. salo salopard nga nga bëgg a <laughs> kon da nga kul nii rek mais salopard nga. waaw baax waaw bu la neexee. <laughs> alors miix sedd rey lañ koy wax loolu moom mooy koo xam ne da ngay tekk tekkaarul lu ni numéro 10 bi non mais nañ égali sa philosophie boobu parce que loolu baaxul miix sedd rey moo gën a garaaw genre yooyu laa de moom silencieux bi si suuf laa jaar bu doon ngelawal ma ne moom mooy silencieux bi <laughs> boobu mooy rey ñëpp gën a <laughs> euh, le 10 c'est écrit en chiffre ça symbolise quoi bon le numéro 10 parce que on pouvait l'écrire DI2S mais du am impact quoi mais boo defee 1-0 peut-être mën naa ne amul rapport bu turam am numéro 10 quoi léegi Cool 10 bi day facile quoi si déggin ci waxin ci ni nga koy gisee quoi parce que loolu yëpp dafay laaj quoi. mais ça n'a pas hmm. lan la. maa dàq bind si bi. léegi c'est quoi rapport ak mën a bind. waaw bon boo nee. je te parle de de de de chiffre tu me parles de lettre. chiffre le numéro 10. Ah, bi. ah comme si terrain bi. waaw mais numéro 10 moom. si terrain day séddale. dañuy wax terrain mais numéro 10 philosophie la quoi yow numéro 10 nga ci li ngay def parce que aaru mbedd ñëpp a ngi lay suivre Sénégal ñëpp xam nañ Pape Sidi c'est parce que teel a numéro 10 si biir gars yi quoi. Ah, mënoon naa nekk numéro 1 à 1 ba 9 maa leen gën a taxaw. non non loolu ay nekk mais numéro 10. voilà foofu nag moom mool nag. <laughs> góol bi moo koy toj alors cet album vient de sortir ça a été produit par un label qui s'appelle que je viens d'entendre ah mosuma dégg turu label bi ak Didi Record Didi Record ils sont connus Dóor Gaynde Entertainment ñoom ñan la moo nekk nii moo nekk na yi ngay gis nii yëpp ñooy Dóor Gaynde bi quoi ñooy force bi <laughs> dur non arrière nga filmé <laughs> lu leen gaynde def ba ngeen koy dóor am fit rek am fit rek xanaa gaynde Panjaabi ngeen di dóor <laughs> <laughs> yow li ngay wax kenn du ko dégg ngay expliqué noonu micro baa ngi fii ci man <laughs> non on va y revenir tout à l'heure vous allez comprendre c'est comment c'est intéressant le hip-hop alors nga ñëw ñaari euh, tali nga am ay grand wala ay gars yu nekk si ñaari tali ñaari tali on les connaît à travers le sport on les connaît si seen solidarité ak si seen mën mobilisation ay sotkat lañu est-ce que tu penses que loolu ñu nekkee ci sport bi mën nañ ko xëpp ci musique. bien sûr bien sûr man man am naa ci ay preuves quoi hip hop bi tamit am na ci ay preuves parce que flow j'étais le seul boo xamante ne wala je faisais partie de ñi nga xam ne ñu doon indi ay dix quarts ay. ay neuf quarts chaque chaque édition quoi loolu gars yi xam nañ ko gars yi ku xam ku liis da ngay public quoi parce que ñun dès le début organiser nañ ay concert def nañ ay affaires yu bëri quoi keroog euh, bi may présenter album bi y avait beaucoup de personnes gars yi ñëw en masse paa yeeg maire yi gars jàpp quoi ghetto bi moom ñoo si ginnaaw diis bi quoi. kon Cool 10 tu sens que tu as le soutien de Ñaari Tali. bien sûr nga soutien yooyu noonu sax Ñaari Tali Grand Dakar Biscuiterie. ma si dégg man je suis jamais venu en concert à Ñaari Tali pourquoi. waaw loolu moom. benn affaire la boo xamante ne bokk na ci suñuy mission quoi parce que benn instant affaire bi daf fi dee woon parce que ku xam hip hop xam ne racines yi fii la jógee quoi mooy Grand Dakar mooy Rapadio am nañ ci cër quoi. mais dem nañ ba benn moment hip hop bi dafa deewoon fii quoi amoon nañ ay groupe yi fi nekkoon comme ay cannibal affaire yooyu noonu mais avec le temps gars yi dañoo déménager et tout quoi affaire bi dee mais suñu mission bokk na ci yëkkati waat quoi et incha allah concert yi ñu ngi ñëw affaire yi ñu ngi ñëw quoi. maa ngi nuyuwaale waa Aada ñoom Aada léegi. woke side la ñu ñoom ah ñoom wul terewul ñuy wax dañuy wax ñaari tali. et puis euh, a pas mieux que monsieur le maire bu nekk ci biir dëkkam di gérer ko waaye monsieur le maire bu nekk Ndakaaru doo xam problème waa dëkk ba <laughs> donc Aada Cannibal je te fais un coucou. Euh, on va rentrer maintenant dans cet album. lii mooy album bi je peux le sortir ah. mën naa ko génne yi booy da ngeen xewal ay clé ay innovation booy sa affaire bi nice na trop waay. jamono day dox tamit quoi. lii la la. clé USB la waaw bu am non ban batterie. mu koy daji de. dajil li dafa war a dajeeku sax. Hmm. waaw bi yaa ko moom booy dem da nga koy yóbbaale comme ça nga cons album bi comme nee nga biibar joxul la ko quoi. biibar joxuma dara biibar yow defe nga ngay di wax jox nga ma joxoo ma <laughs> nii. ma rek yow booy <laughs> nekk clé ñaata giga. 32 giga la. 32. billaahi. waaw booy loo dem si 32. affaire yi ñoo diis quoi album bi moo diis. xajul si ay 1 giga ak yooyu noonu. waaw booy clé 32 giga loo koy doy. <laughs> non dañ koy jox gars rek dañ leen koy may rek. l'album de Cool Disc qui s'appelle lu dul yàlla nen la lu tax nga wax waaw loolu ku la menacé wala. non même pas loolu philosophie la loolu si laaf bi la da ngay xam ne lu dul neen am na nu ñu koy waxee ñaare des fois da ngay gis benn nit bu naan la dinaa la wala dinaa def ci yow ba nga jógee sa place nga ko waaye dimbale ma lu dul yàlla neen la c'est-à-dire la boo xam ne dafa am fu ñu koy faral di utiliser. parce sax lu dul yàlla neen la existé wul parce que neen amul quoi yàlla moo nekk fépp mais loolu baatu olof la olof mooy faral di wax lu dul yàlla neen la mu bëri ay signification nag parce que nit koo yaakaar yàlla la yaakaar xam nga. lépp lay ut tamit neexul yàlla mënoo ci mënoo ci jot yàlla moo nekk fépp quoi y lépp loolu moo tax lu dul yàlla neen la quoi. et cet album la tu l'as appelé lu dul yàlla neen la pourquoi est-ce que dafa am rapport. waaw am na rapport par rapport ak titres yi par rapport ak suñu expérience bi ñu jot a dund par rapport ak 6 ans yi par rapport ak suñu live par rapport ak affaire yu bëri quoi. suñu live. yeah parce que rap loolu la en général en. non mais cest à dama bëgg a comprendre en fait dafa am lu la motiver parmi tant de milliards de titres. nga tànn si lu dul yàlla neen la. am na y une motivation derrière. si jaar jaar bi def ci joué quoi parce que affaire yi ça n'a pas été facile jug nañ daanu nañ xam nga def nañ ay affaire musul yomb quoi parce que. bon Coulisse musul am chance su nekkoon ci nekk ci label musul am chance su nga xamee ko benn grand peut-être wala am chance su bras long ci game bi il s'est fait tout seul ñun ñoo faayet man ak sama gars yi ba teg album bi ñun ñoo faayet ba egsi fii quoi moo tax après da ngay wax ni lu dul yàlla neen la quoi comme par exemple gars yi nga xam ne dañuy gëm ni wala ñu jàpp seen xel ni il faut ñu dimbali la pour nga egg wala il faut lii nga wax leen non non lu dul yàlla neen la boo gëmee sa bopp liggéey tu def li nga bëgg def quoi loolu mooy deal bi. cet album est disponible bon disponible na partout instant bi nii si town bi disponible na ci plateforme yi ku ko bëgg daal joxe. téléchargement waaw Jokotex moo ngi Jokotex mun nga ko télécharger foofu semaine prochaine incha allah dina dugg ci plateforme de téléchargement yi yaatu yi bon mooy loolu daal album bee ngi nii ku ko soxla xam na fu muy jaar quoi joxe nañ affaire yi suñuy page Facebook et tout quoi. sa page Facebook ki Cool 10 rek ngay bind. Facebook Instagram Twitter ak YouTube. Cool 10 di nga ma di nga ma am quoi. da ngay bind Cool C O très bien sur Instagram mais sur Facebook sama compte personnel Cool 10 Kan la boobu se écrit avec DI2S mais am naa page officielle Facebook Cool 10 l'officiel quoi boobu c'est écrit avec 10 quoi. kii kii vrai salopard la wax na dëgg li gis nga bi ni ngeen koy gis mu cool nii faut pas vous dire que il est cool non pas vrai déglu ko muy rap rappeurs yi dem leen déglu booy bi parce que ku nekk am na lu mu la dencal ci albumam bi dégg naa si ay bagage yu sew yu saf yu soof booy yow da nga réew booy yow kuuloo mosoo kuul en tout cas ma mission à moi c'était aujourd'hui de venir vous faire découvrir vous faire connaître un artiste qui vient de Ñaari Tali parce que lii moom mooy Pout Ñaari Tali on the map of hip hop la cartographie du hip hop boo ko tëralee ci benn table mooy carte bi tax ñu naan fii am na hip hop boo dikkaan ba Ñaari Tali da nga koy survoler na ah ñaari tali ko connais pas trop ah. xaaral ma tëb ko mais tey yow ak ay brisque ak yeneen booy yi fi nekk parce que yéen rek laa ci xamagum yéen ñaar vous parvenez à dire bul romb ñaari tali taxawal parce que fii am na hip hop. et am na hip hop Grand Dakar am na hip hop NGB am na hip hop quoi parce que ñoo ngi fi 10 bi mi ngi fi. ah na loolu leeru moom fii moom leer na ko. Grand Dakar boo nee ñaari tali Grand Dakar ngay wax loolu benn la. non non non munoo jël ñaari koñu jàmbur bàyyi waa Grand Dakar gérer seen bopp. prophète sax moom fan la nekk moom. gisante nañ yàggul rek bi may préparé sama album bi waaw. pro yaa ngi fi. ma de pro xaw ma si loo nekk sax. bi di joob rek. musul pro eh, 10 ans mu ngi nii mu ngi si <laughs> xanaa day defar <laughs> mooy góor gi ci ruq bi kon. <laughs> alors ce que nous allons faire c'est vous laisser regarder une vidéo histoire de venir terminer regardez mais concentrez-vous sur le flow la facilité du rappeur qui répond sous le nom de Cool 10 pour votre plaisir dans Arru Mbed De retour sur le plateau, amis téléspectateurs, voici celui dont je vous parlais qui répond le nom de Cool 10. Allez vous procurer cet album. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sinon, vous avez un autre numéro de téléphone pour ku ko bëgg a parce que bii gold la gold bi mooy jar ñaar. 10 000 yee man maa <laughs> ma ni waa NGB ñaari tali ñu ngi door am balaa maa xam ne waa NGB ay guerrier lañ ay ñaari tali affaire yooyu noonu ni ñuy def. di def ay bu ñu amee match ku am problème ak ñaari tali da nga naan yii <laughs> waa ñaari tali kenn dugg si ñoom non il faut que ñu déverser loolu si hip suñ ko defee daal ma xam ne lépp dëgg la mais buñ ko deful dama naan ah <laughs> waaw ñaari tali de baleen foofu ñoom. si waaw loolu mooy mooy yoon quoi gars yi. je les attends je les attends waaw waaw waaw gars yi ñëw nañ jour sortie bi. xam nga jënd nañ li fa nekkoon mais affaire yi instant mi ngi fi quoi ñu ngi jaay nank nank ñu ngi fekki gars yi. numéro 77 276 34 00. wala 462 18 47 boo ci woo am album bi. il faut l'appuyer il faut venir l'encourager parce que autoproduction dafa métti koo xam ne tu es parti de rien Aliou foofu nga taxaw foofu la soleil bi di jógee du ñu am leeraal merci beaucoup. benn dof la ñu àndal ci tournage bi temps yi dinaa la mos a dàq premier jour premier dàq <laughs> mooy ki yoroon <laughs> di wax ay affaire ak Sadio Mané yooyu noonu voilà kooku la ayca euh, cool mhm. du ma la wax Toto Anapate mais bëgg naa nga nappaate. ah man may gars yi dara quoi. ma may gars dara ma xool buñ la may lépp nga jël lépp gàtt xel dañuy mayante ne ah. na ma yàlla ji musal ci ku gàtt xel. di yàq der jaxase rekk gàtt xel léegi nit yi dañu gàtt xel. depuis léegi nit yi dañu ga dem ba soobu ci monde bu deng bi ñu nar a sànq mu mel ni bëreeg ku mën ba noppi may ko tànk jëfinu mala yi ñuy def te duñ ci bàyyi xel non nit yi léegi dañu gàtt xel si ñeegu loo meyaa dàkk daanu Neymar yow lu la dal li si jigéen du taat rek am na lu ko dàkk wante yaa ko def sa xel. daanu kat baa ngi bopp stress pour plaisir cinq minutes waroo di lepp. bu dee da ngay fàttee fay lu tax ngay daaj baa di toog te xam ni job day fay bul kaas état ku ne sa tool yaa koy bay maa la gën a muus foofu nga bëgg ma jàppee dof man Assane Diouf mënul nekk sama référence taxaw di saaga publiquement loolu du cër ko ci bar ma mosoo ko gis pourtant moo yàq sa life waa lan la téléphone di wut ci suufu sër biir du fees waaye lekk am na suur naa président africain du doyal mandat yam si danger sauvé woo di génne caméra police bi war a aar di mujjee faat lii de doy na waar kaana bi de li muy laaj mooy lan nga mën tubaab bi ne la ana say diplôme mais li ma gis biir Sénégal man yéem na ma fii ku fi amul wéeruwaay coolle nga. non waxuma loolu li nga rab ni nice na mais sa texte la. gars yi dinañ déglu album bi dinañ ko déggaat. dama bëgg par exemple si jotaay bi ñu nekk am na ay termus am na ay barada am na ay gaz ay sio ay kaasu café nga defal ma freestyle impro live and dare dama bëgg gars yi ñuy sentir ne yow waa ji dafa jaar ci compétition dafa mbappat. waaw ba tey bu la neexee maa ngi ceeg maa ngi ceeg yow diis bi ngay am ndànk-ndànk gis nga damay rap yaa ma gën a xam maa ngi nii toog ak kan Pape Sidi Fall ndànk-ndànk gis nga man ghetto bi booy ñoo ma fal nu ma neex laa koy defee barki maam Cheikh Fall li may def dama ko mën damay takk di taal wala boog ay ca feeg ni nga dooma muskal maa ngi nii. <laughs> mu naan ma ba yamba ndànk-ndànk gis nga kul du ab yambar li muy def daf ko mën ndànk-ndànk maa ngi toog tiim termus ak kafteer kul lu muy def niga dafa cher album bi junni lay jar ay ca demal jëndi ko ndànk-ndànk gis nga ay ca café gi booy xelli ko gars yi naan nu ma neex naaw mel ni ku ne ci hélico wala boog gis nga diis bi ngay am booy ki daa ko bind ci booy dóor gaynde <laughs> eh, daanukat baa ngi nii filmeel ma ko moom carrière bu prématuré la am moom dañ koy daaneel rek mais sa daanu yi ngay daanu si làmb ñi nag métti wu ma man daanu yi ngay daanu kër gaa ma métti bàyyi daanu foo dëkk nga daanu noo tudd nga daanu moom moo tuddoon nan bi muy nekk mbër booy bakaaw ak yow bakaaw ni nu baaxee Gambia nga ñëw ba senegal di daanu rek bàyyil daanu bu bëri bi CNG nan nangu seen licence ah Modou Mbaye kii jël ko booy Bakaaw mi dafa mun daanu image du jour Bantamba <laughs> alors merci beaucoup. waaw mais rendez-vous le 24 décembre euh, incha allah waaw concert bi fii lay amee si esplanade bi. di woo gars yëpp ñu teew xam nga di wax gars yi album bi génn na xam nga mooy loolu daal ñu ñu ñëw support waajal le 24 incha allah yaa ma gën a néew. merci beaucoup il répond sous le nom de Cool 10 il vient de sortir un album qui s'appelle lu dul nen la qui coûte francs mesdames messieurs allez le soutenir parce que c'est autoproduction c'est eux qui se sont retrouvés avec des bandes de copains qui ont sorti un album une production musicale qui mérite d'avoir euh, un soutien venant de vous si vous pouvez aller en jetant un coup d'œil ils sont sur il est exceptionnel waa euh, et ils gigantesque les gars maa ngi dem si beneen level maa ngi dem si beneen universe maa ngi dem si beneen bagage à gaz am na lu di wax léegi loolu laay dem waxtaan ak wan lirigal waaw mooy fok xaw ma concours ak final concours <laughs> yow de concours yow saaga waale da ngay non mais Dip Doundou Guiss bu waxee loolu am na fu mu ko teg ah. waaw yow kon doo fay non Kalla Faye Dip Doundou gis lu mu wax noonu la kooku mooy kii bi quoi. <laughs> Dip nu mooy. Dip respect Dip li mu fi def mënul dañ na gars yi fexe def comme li mu def quoi moo gën ñuy clash affaire yooyu noonu man loolu laay wax quoi. saa yu bëggoo ñu may rek 200 millions. non même dan 200 millions Dip xamoon sama waay la. Ah, ay copain ngeen. sama su nu ma la si laaj waay man pour ku nekkul laa bëggoon waay mais sama gars yi jaa ngeen jëf. merci beaucoup c'était un plaisir gis nga waa ñaari tali les gens ils sont solidaires ah ils ont arrêté leur activité ils sont venus le soutenir il y a du monde derrière lui et ça ça fait plaisir Cool 10 ngeen dem tey nag Bruno wax dëgg yàlla je suis gâté pourri quoi parce que tu m'as donné un micro de high qualité je suis très fier de toi et tu es bien Bruno Caméraman Bantaba. Alors, c'est quoi Arumbed C'est une émission qui partage avec vous les moments d'actualité du hip-hop. Ak fu mu mënti nekk ci àdduna bi, si on a la possibilité de le faire, on le fait avec plaisir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un gars qui a fait un truc, mais récemment. Hein? Ah, tey la jeudi yéen a ngi koy seetaan mais émission bi ñu ngi koy tourner euh, fekk moom si la la veille la génnee Euh, single boo xam ne dafa bees mais loolu yëpp dinañ ci dellu si waat nous sommes avec One Lyrical yàggul jógee ci émission bi ah mais comme on dit quelque chose qui tire vers l'actualité dans le hip-hop on est obligé d'en parler One maa ngi lay ziar. loo ziar Pape maa ngi nuyu di la ñu seetaan. maa tout se bien. alhamdulilah. <laughs> yaa ngi riir ce qui veut dire que euh, y a de l'argent xaalis mu ngi dugg. waaw ça va ñu ngi ñu ngi ñu daal lu war a ñëw daal mu ngi ñëw en potentiel. Ça n'a pas encore fait trois mois, mais on peut, on peut, on peut faire déjà un petit bilan. Est-ce que tu penses que le public l'a bien reçu Est-ce qu'ils ont, ils ont été réceptifs Est-ce que changement de terrain yi nga def si univers musical yi nga dugg est-ce que tu penses que nit ñi adopté nañ ko comme ni nga ko espéré woon bi nga duggee studio. waaw bu baax honnêtement pour wax de rek gars yi affaire yi daf leen a bett bon xaaruñu ko woon. en plus voilà man bi ma koy def y avait des gens yoo xam ne nii du ma wax sax des gens benn minorité la boo waxoon est-ce que public bi dinañ accepter lii nii parce que xameewuñ na lii quoi donc après je pense que ba projet bi génnee gars yi ñoom ñoo leen tontul seen bopp quoi parce que jël nañ ko comme ni nga xam ne ni peut-être man noonu laa ko gisee noonu laa ko gisee woon ba may job projet bi mooy un one lyrical boo xam ne nii dafa bees un projet bien réfléchi et que voilà wax dëgg yàlla nit yi affaire bi dugg na leen tey gondi na leen daal waaw ah, yow sax su ma la waxul sax war nga xam. j'ai constaté une chose moi je me pose la question damay gis ay boo yoo xam ne ils sont dans le hip hop ils sont des self-made c'est-à-dire ñoom ñooy produire seen bopp. mais bu ma gisee li ñu ce qu'ils parviennent à faire te nekkuñu si benn label ah, ñoom ñoo jël seen ay propre xaalis des fois sax seen ay waa koñ yi ñoo siy jàpp ñu def ko kolo kolo di jënti ay spot rajo ay spot télé def sax ay affiche wala ñu accompagner ko ay concert ay affiches yu mag si si dëkk bi yow nga bokk si Kayzit c'est un grand label qui est connu en Afrique et connu aussi dans le monde mais gisuma loolu c'est quoi qu'est-ce qui se passe entre toi et Kayzit que tout se passe bien wala c'est le produit qui n'a pas a besoin de faire ce communication bon faut ñëpp xam ne man self made là comme tout le monde d'ailleurs sama studio ngeen ma fekk donc je fais mes trucs d'ailleurs au passage très très très très joli studio donc euh, damay defar samay affaire samay bopp sama bopp dama engagé ay beatmaker fii nii ay ingénieur de son tu vois loolu noonu yëpp xaalis la quoi en plus pour man boo demee bay job ak benn maison de disque c'est parce que mën nañ la defar loo xam ne mënoo ko defaral sa bopp. Mm-hmm. yow mooy am na possibilité yoo xam ne nii tey mën nga gagner ay gros marché xam nga def ay tournées et tout xam ne nii yow mënoo ko sa defal sa bopp actuellement nii nii nii nii mm-hmm. mais su fekkee génne album comme ni ko gars yi di defee mën naa ko sa sama bopp mën naa liggéeyante ay panneaux jaayante ay affiches tout def ko tu vois mais tey. maison de disque bi muy ñëw pour job ak ñun daf ñu wax lu leer tegal ñu ay contrat xam nga ñu d'accord ci ay points am ci ay points yoo xam ne tam d'accorduñ ci ñu modifier contrat bi defaraat ba mu arrangé ñu ñoom arrangé ñu ñun ñu continuer si job quoi donc man lu ma sekkoon ak ñoom mooy ma tëju job studio benn projet bu nice après ñoom ñooy chargé wu lépp li nga xam ne moom moo ci des muy communication bi et tout donc gis nañ ne affaire yi am na ay lenteur mais lenteur yi tamit du ci One Lyrical ci maison de disque bi la en plus foog nit yi xam ne tamit euh, am na structure yi ak yenn. yenn yenn bunt yu bëri yoo xam ne dañ ko dëgëral parce que dëgëral bi mooy peut-être ay tubaab la ñuy dañuy liggéeyal affaire du yomb tu vois des fois dañ leen yónnee ay mail def ay demande wala bëgg a ak ñoom pour fay leen ñaanuñu leen mais souvent gars yi duñu tontu mail yi dañuy bàyyi man damay ñëw dañ may won dañ may won email yi dañ may won lépp donc euh, tout est écrit noir sur mais après lan nga si mën mënoo si dara man je suis un sénégalais comme ñëpp damay def musique Sénégal laay représenté donc <clears throat> pour man bu benn entreprise française wala espagnole wala whatever ñëwee di bëgg liggéey ak ñoom parce que seen doom lay joobal gars yi dañ leen war a ubbil porte yi mhm. bu baax mais defuñu ko dañ tëj porte yi donc loolu noonu man en tant que artiste mënu ma si dara loolu label bi moom moo ko gérer man ku ma am ku pour pour rendre la compte mooy label bi su ma gisee ne job bi jaarul yoon wala affaire yi ni mu waroon demee demeewul noonu damay togg ak label bi mhm. ma waxtaan ak ñoom mais du loo xam ne damay génn ma koy waxtaan ak nit yi wala may wax gars yi du maanaam nekkul lépp la ñu war a xam. mais tu sais dans le hip hop les gens parlent les gens constatent les gens observent et des fois se posent des questions et c'est à vous maintenant de nous éclaircir loolu nga wax nii d'accord naa si bu baax mais comme ni mu la wax léegi tey gars yi nekkul lépp lañu war a xam. du lépp lañu war a xam Pape Sidi yow personnellement am nga say problème yoo xam ne nii problème famille la wala problème loo xam ne sa vie privée la quoi du lépp la ñuy xam comprends lu mu lay wax. aw ma problème six moom yoreel dix mille bañ <laughs> <laughs> Alors, euh, One Lyrical, cet album-là, il peut pas on peut pas dire que c'est pas un bon album c'est un très bon album d'ailleurs euh, bi mu génnee dama gis à l'unanimité ñëpp ne am na variété am na ay coloration yu bees on a vu un nouveau One Lyrical et qui est en train de faire un petit bonhomme de chemin ça n'a pas encore fait trois mois euh, mais un jour comme on est tout le temps ñun sur le net on est tous des jeunes on le net on se chatte des trucs on se fait un kiff sur Instagram dama la mës a gis nga upload une vidéo euh, où tu parlais de du comportement de certains des animateurs donc j'en fais partie je suis venu même en commentaire en disant je suis déçu pas parce que man c'est moi personnellement mais je suis déçu de l'ensemble de tout ce que tout ce qui doit se faire bi ñoom Awadi ñoom Degiti ñoom Xuma nekkee ci Sénégal boobu benn télé moo fi nekkoon et pourtant ñoom ñëpp amoon nañ satisfaction mais tey on a plus on a plus de télé, on a plus de radio, on a plus de sites internet, on a plus d'animateurs, donc plus de euh, plus de plus. Donc communication bi waruloon jafe lan mooy ce problème si animateurs yi dans le cadre général ba nga am noo créer sa ras-le-bol wala benn affaire bu la jaaxal. bon wax dëgg yàlla nag amuma benn problème ak benn animateur xam nga bañ na ko ba ñi ma si xamanteel bëriwuñu tu vois parce que man moom nit ku nekk noo ñëwee ak man rek noonu laay noonu laay ñëwee ak yow quoi. Mm. mais dañu nekk si benn dëkk boo xam ne affaire yi xawul jaar yoon quoi benn instant je je dirais donc euh, gars yi peut-être dañuy dañuy dañuy gën a valoriser ni nga xam ne ni peut-être ñoo visibilité wala dara donc loolu man ba ma demee ba koy wax wax dëgg yàlla waxuma woon pour man sama bopp quoi parce que tu vois xam naa ay artistes yu bëri am na ay yu bëri yoo xam ne ñu ngi seen yoon ñu ngi def seen bout de chemin mais tey pour ñu am émission ak benn animateur sax da ñu lay man bopp yooyu mosuma sax dugg yónnee jël sama son di ko yónnee animateur mosuma ko def c'est pas que dama xeeb animateur yi wala dara mais lépp loo gis bu amee des bon am na des mauvais bu amee ñuy defar am na ñuy yàq tu vois am na ñoo xam ne nii dañuy woo booy di jéem a lekk si ñoom xaalis wala genre affaire yooyu noonu mais loolu foo ko mu dàkk quoi animateur yow yaay def lu lay respecté par exemple benn Pape Sidi mu ngi job 2 mu ngi job Ida jo gars ñu ngi koy fay mu ngi dawal otoom kon kooku caaxaanul mu ngi liggéey tu vois nekkul di di nekkul si ay affaire yu ñàkk fayda quoi tu vois donc je dis nag gars yi dañ ci nekk mais am na ñu koy def qu'on se dise la vérité donc loolu la rappeur laa damay wax lu ma xalaat am naa samay avis si leneen ak leneen loo xam ne ça concerne la musique ñun ñëpp lay defaral ndoo wala ñun ñëpp lay yàqandoo su fekkee mën naa si wax dama si wax donc loolu coup de cœur bi loolu rek la woon mais nekkul woon pour man quoi. léegi Baye Amaro sama coup de cœur man wax naa ko si début émission bi bi ñu nekkee ñaari tali ak Kourdis waaw sama man sama crédit du moom mooy man sonn naa six ba ma nekkee Pape Sidi ba léegi mosuma changé numéro benn numéro laa am. six fu ma dem Sénégal ku ma laaj sama numéro ma jox la six damay xëy di liggéey cinq heures du matin ba vingt deux heures ma yegg si kër ga taal sama eh, teg sama téléphone gis ci ay trente cinq wala quarante appels en absence ma commencé jël wala ma commencé rappeler waat rek madame yuuxu munoo xëy tout la journée tu es dehors et tu rentres à la maison munoo sax am vie de famille tu es le temps accroché à ton téléphone danga naan xaaral ma bàyyi rappeurs yi. dañ la yaa booy li nekk si projet si rappeurs yi bu ko Macky Sall jëloon émergence bi romb na fi y' plus de rappeurs que de que au Sénégal loolu maa ngi koy jooytu bu baax man sonn naa man dinaa da ngeen maa bëgg a dofloo man <laughs> benn nit la dee naa wat wit wit war li mu wax dëgg la waaye man moom xam naa ne dinañ ma karaas mais billahi demos bàyyi góor sonn naa bàyyi bàyyi dimbali leen ma faal donc on revient à mais avant tout on va euh, la vidéo la vidéo qui est sortie il n'y a pas 48 heures. One Lyrical yàggul bi ñu gisantee may def ak émission ma dem ba émission bi di jeex ma ne la looy wax ci gars yi nga xam ne d'avance dañ lay woo ci interview pour nga war a def sa promotion album ñu nekk fanaan la yow ak Dip muy nekk ay conflit wala ay règlement de compte ba nga fàtte sa communication album nga am loo ma tontu woon est-ce que mën nga ci jaaraat. moom tontu woon sax. non Dip sama gaañ la dinaa ñëw le 30. maa wax sama gaañ la dama ne dinaa ñëw le 30 ñëw seetaan. donc te bi ma koy wax j'étais sincère. Mm. et que voilà après y a eu yu am génne na album am xam na di di jaay geng sa mais man ku ma wax dama lay xuri. c'est que là où j'ai pas aussi deuxième ñàkk comprendre mooy da nga benn sentiment de. dépassement boobu laa koy mën a wax de esprit de dépassement ci yenn affaire clash yi jotoon am seen diggante yow ak Dip après à un moment donné ngay sax euh, wax na di nga dem ci show ba bi albumu Dip génnee le lendemain ñu gis la ci réseau yi gars yi hip hop bi yëpp pré partagé ko nga jël benn son wu Dip la video d'ailleurs disponible sur le net di ci jaaraat di mel ne ku kontaan ñëpp di ko rafetlu ci commentaire yi naan non lii mooy esprit de dépassement quand tu as hier les photos de Dip et du logo quelqu'un est venu dire sur les commentaires xam naa ne da ngay waaj a dellu jiwaat Reptile Music donc tu as trompé pas mal de personnes pourquoi nga reprendraat wayu Dip mel na ku si kontaan di ko woyaat si réseau yi après le lendemain nga annoncé ne da ngay génne benn affaire nit ñi foog ne déclaration bu pour delluwaat Reptile la yow nga toog ba mu yàgg ñëpp dégg la ngay clash qu'est-ce qui a motivé toute cette histoire qu'on pas parce que moom il a pas mal de personnes parce que amul esprit de dépassement moo ma mag tu am na tey fu mu nekk position boo xam ne nii fa la nekk il est bien placé bien positionné waroon na xalaat yeneen yu lu nekk di di dugg si ay affaire yu ñaax fayda tu vois mag tamit bu respecté wul boppam après xale tamit lu mu ko wax jàppal na moom la. yow di di ñaataat la la magee. xaw ma ko mais moom mag. waaw nga koy si ay dëggati nga mag bu respecté wu. loolu pas d'esprit affaire de dëggati wala genre mais ci ay at moom a mag. Uh-huh. tu mais c'est juste que voilà. tey waroon na am beneen position bu mu taxawee wala beneen beneen beneen beneen placement parce que ay xale dañ koy déglu ay mag dañ koy déglu man tam ay xale dañ may déglu ay mag dañ may déglu aussi ñàkkuma fayda sama moromu góor ma wax dama lay xuri comprendre nga donc euh, noonu la fa demee génne na album moom sànni ma si ay pic tu waa wax dëgg yàlla mosuma yéene kenn lu bon yéenewuma kenn lu bon ba tey may wax ak yow nii quoi mais. lu ma waroon def def naa ko. déglu yow déglu ma oh, rek non dinaa wax ci loolu baal ma ba ma ñëw ba ma pare non ay yéenewu ma kenn lu bon loolu moom on va on va en parler euh, da nga génn reptile nga bind son classe reptile bi mais boole waale si diib mais diib faalewu la tontuwul boog ce que je veux dire tontuwul directement comme yow ni nga ko defee de manière affrontée de manière visage euh, pas voilé du tout diib n'a pas répondu nga bëgg a defaat une deuxième fois. te moom pic. pour yow pour yow man damay génn rek jël benn son cible benn nit wax ak yow pour parce que j'ai juste envie de ak yow wax ak yow dem def du ma def loolu. nga moom ban pic laa moom non mais may nekk fii di détaillé man lu may wax mooy gars yi ñiy def ITV ak yooyu bu kenn ñëw di ma interview ma laaj affaire di parce que du ma leen sax wuyu ku ma woo sax du ma la jël soo lu ma war a wax. wax naa ko jël ma man. non parce que danga maa bett <laughs> ma bett donc li ma waroon wax wax naa ko si son bi. Mhm. ku bëgg xam demal nga déglu li mu wax nga dem déglu li ma wax après fin fin fin fin fin quoi fa laa ak moom. foog ay final concours da nga si gis sa bopp. ba ma ne ko foog dip man maay man maa gagné concours. yow ñi gagné concours Sénégal bëri na. waaw mais ku wax Alsaan Djigo wax ay concours wax ay leneen ak leneen du xam nga bëgguma fi nekk di expliquer. ah donc dafa am concentré boo xam ne danga nga tu t'es senti vraiment touché là. ba parce qu'il m'a touché. daf mhm. maa touché ma effacé ko. léegi yow nga génne automatiquement réponse boo xam ne yow defoo pic. non man def ma pic man kenn kenn xamewu ma sa ay si ay pic wax dëgg yàlla musuma sànni benn rappeur pic comprends nga comme sa rap affaire de égo la su may demee bay wax ak nit damay wax sa tur jaar sa tur direct ma ne la faal njaga yaaram yow laay waxal mm-hmm. bu fekkee taaree kuy da nga may tontu nga def ni ma def nga tontu bu fekkee day jur leneen mu jur leneen mm-hmm. tu vois mais du question de ay damay damay damay parce que dama bëgg pic nekkuma si affaire ñaax fayda yooyu sooy boo demee bay wax ak nit comme am nga courage yu dem bind say di ko jaaral feneen mais waxal nit yi ñëpp xam ne kii ngay waxal te foog gars yi xam benn affaire mooy faal foog nga bàyyi sa victimiser wu da ngay def sa affaire yi ngay def après di làqatu ci ginnaaw di jooy nit yi dañ ma dañ ma bañ wala nit yi bëgguñu ma wala fii kenn bañu la kenn kenn kenn ñaaxu la yéene li nga am tu vois parce que nit ku nekk loo am da ko liggéey am na yoo xam ne tamit yàlla def lay may wërsëg tu vois say buntu di ibbeeku ndànk ndànk ndànk ndànk mais ça pas dire que yaa moom nit yi wala yaa leen jur wala genre affaire yooyu nit yi ñi ngi def li ñuy def defal li ngay def nga dem kenn ku nekk dem boo si waree am dara nga am ko boo si warul am dara tam ñu xam ne loolu la yàlla dogal. ñu la la sànni est-ce que yow mënoo ko woon sànni pic parce que beaucoup de gens vont dire <laughs> beaucoup de gens vont dire euh, que ni non xëy na wan dafa bëgg a rek pour après gars yi bàyyiwaat ko xel wala coup de buzz la wala coup de communication non Pape Sidi man nekkuma si yooyu wax dëgg yàlla man gars yi wax ay affaire de buzz ak yooyu liggéey di mën sax bañ na ko ba maanaam lu bëri sonalu ma quoi mm. su may def benn affaire xam naa ci ban état d'esprit laa nekk di ko def mm. j'assume tout amul lenn lu ma ci dellu ginnaaw wala lenn lu ma ci ragal fu mu jëm fu mu bëgg nag ñu yegg fa ko mm. man pare naa pour lépp mais juste lu ma waroon wax wax naa ko après damay continuer sama liggéey ma avancé am naa ay projet génne naa sama album donc man bëgguma sax ñu nekk fii di attardé wu si ay waxu. Ah, man bëgg naa une dernière chose rek si man dip moomu ma du sama du sama classe bi c'est <laughs> mooy actualité bi instant yi boo demee si toile bi tout le monde en parle euh, on peut euh, beneen affaire bi ma seetlu yow da nga bëgg classe dip mais bëggoo ko classe yow lan la yow kay classe day saf. non bi baala dafa classe dip classe bu saf. ñëpp ne bii baa la classe ne dib ah, kii nii nu mu tuddee ci tuddati Karbala classe dib classe bu tar ñëpp ne classe ne dib yow nga classe dib naan ko ay non yéene naa la jàmm ay liggéey kat yow ku buggoo koo classe mais parce que dëgg la day liggéey non mais mais loolu ça ne veut rien dire man amuma xol bu ñuul du ma amuma ay idée derrière la tête quoi tu vois am na ay affaires yow su su ma la waree wax benn affaire dam wax man laajal sama gars yi ñu ngi nii su ma déconné wala ma def dara dañuy jaakaarloo ak man wax ma ne ma booy li nga def du yoon defoo lii ak lii ak lii tu vois ñoom tam seen côté liggéey bu ñu deful dara dam lay mën a ah, faal lii mënoon na demee nii mënoon na ne pour man life bi noonu la war a demee waruñu fi nekk di raayante wala ay affaire yooyu man bañu ma ko ma koy waxaat encore une fois tu vois damay kiife li muy def mais tamit ku ma sànni xeer dama lay dóor brique caaxaanewu ma ko sax waaw fooyewu ma ko. kon léegi noonu ngeen ko bëgg a jàppee yow man pour man maa ngi doon wax naan Alassane Djigo billaahi woowoon naa diib ne ko diib Alassane Diogo da ngay da ngay dem force par la force doole mbaam dama la yóbbu si concert bi comme ça nga nekk surprise du concert ma toog di kalaasante yow picc bi moom am na ñeneen ñu fi jël concours. Ah, mais man tam jël naa concours en tout cas. oui ma jël concours waa accord mais jël naa concours. donc man jël ma dani moo ko moom bàyyi ma. waa d' accord génnu ma si <laughs> génnu ma si ku jël concours génnoo si plus de 400 rappeurs xaw ma 600 rappeurs laa defaral si benn concours moom. yàgg na def ay concours rap mhm. yàgg na fi kaas ay damay dem concours rab gars yi di ma di ma di ma xeex affaire yooyu noonu man mhm. deux ans laa def si rab ñaari at laa rap gagné deux millions concours defaral plus de quatre cent personnes ñoo xam ne nii bi ñuy rap sax rabu ma xalaatu ma sax rab mhm. tu vois donc man maa ngi liggéey quoi am naa ay ambition yu gën a ngande ay ay affaire yu ñàkk fayda yi nekk di di di di sànni ay pic wala di attardé wu ci ay ay trucs. tu vois euh, léegi on va parler de ton événement qui aura lieu au stade Alassane événement boobu kañ nga ko jàppaat wala jàppagoo date ba léegi. bon ñu ngi si liggéey instant bi. date bi nag da ngeen koy jàpp keneen ko fi jàpp beneen date bu dul date bi. ñu jàpp date boobu sa kii la. <laughs> en dañu am plan maanaam gis nga nit boo def dara da ngay def nànk ndànk man nekk nekkuma rappeur encore une fois moo wax du ma rappeur boo xam ne damay rap pour juste benn buzz vite fait après dem man dama bëgg def carrière plan de carrière laa am plan de carrière nag bul ma jugé ci moment bii nii nii lii. kii mi ngi def lële lu waaye xam na def bu leen neexee sax nañ jël Sénégal bi yëpp def concert maanaam Sénégal yëpp ñu def si concert pas stade wala dara ko <coughs> mais xam naa lan laay def xam naa fan laa bëgg a yegg yàgguma si musique Pape Sidi Pape Sidi tey man lu ma am si musique samay morom am na samay morom yu bëri yoo xam ne amuñu ko am na ñu def fii ay vingt ans de rap quinze ans de amuñu ko waa léegi mu ngi noonu yàlla dafa bind tey yamalewul waaw ni ma njoolee nag noonu laa affaire yi di njoolee incha allah après da nga may nga ne kii moo fi waxoon lii wala est-ce def na lii est-ce que def na lii carrière laay def quoi. mu kalaasati kenn parce que kalaasu yambar yooyu moom boo ko fi naree kalaasat ba ku ma kalaas. da nga war a kalaas nit ba nit ñëpp. la waree tontu dama lay tontu. <laughs> yow ku la picc nga nag laay tontu de. ah non du laay tontu am na gars yu may sànni picc faale wu ma leen sax. am na benn booy bu nekk sama koñ. moo mhm. xam ne mu ngi waaj a jóg mun na la picc. parce que bu la piccee da ngay tontu. mu tudd. booy MC MC Mbari. ah kooku kenn xamu ko mbalit la yaa ko waxal sa bopp <laughs> mbalit la en tout cas daal man lu may wax mooy c'est la dernière fois ma si wax xam nga comme ni ma ko waxee sànq bu kenn ñëw di ma interview di ma wax ay waxu clash génne naa sama album dem leen ngeen déglu ko maa ngi pare ay événement tu vois donc ci loolu laa focaliser wu ko képp ku soxla réponse tamit explication demal nga déglu son yi sa réponse mu ngi noonu wax mu déglu bu foog yaa nigga ak bu wa lyrical cëm booy Pikine. da ngeen dem jënd LNN. da ngeen dem jëndi mais man boo yow boo yow boo yow loo bëgg. ah man bëgguma dara mais booy liggéey laa bëgg. liggéey kase. mais yow que nekkoo du ñu dil yow ak diib sax. man diluma kenn nekkuma si yooyu sax. man ah, maa boo yow nan ngay classé nit ba pare na man maa pare si diib man maa ko wax fii. non mais yéen ñaar ak gars je sens sama que ma dox ci ñàkk fay ni may sendi bu ma leeree ne c'est ça sans le sang clash yàgg naa am ci hip hop bi déggoo ma ci parce que damay xam ne li motiver clash yooyu par exemple xëy na dafay nekk lu ëpp doole rap mais ce clash là je pense que affaire hip hop rek moo ko motiver mais vous pouvez vous retrouver un jour. ci cadre rap laa ko teg ah mënoon naa sanglant mënoon naa violent comme ni ma ko defee woon bu njëkk mais lii laa sentir def def naa ko. waaw rap léegi peleel nu boo xam ne bu nga génnee album ba pare nga ko génnee. waaw. wala bi nga génnee album ba léegi jooba ko. man damay joob every day every night. mais son bi kañ nga ko bind. si laa dëkk son son bi. kañ la son bi génn démb. waaw bërki démb laa ko bind ay 14 heures laa commencé woon job euh, ci laa woo Chérif ne ko mu ñëw ñu enregistré bi ñuy commencé en laa woo diis yi ma ne ko dama bëgg a tourné benn son après ñu tourné ko ci guddi gi ba xoolee vidéo bi jàpp ma sax parole yi. <laughs> c'est ça le hip-hop. Nous sommes à, à avec euh, One Lyrical. C'est ici son studio. Hein. Il est un fils de Pikine qui vient de sortir un clash qu'il a adressé à Deep Dundougis. À même pas une semaine. Hein. Deep, euh, tey la waaw tey la album am une semaine. Hein. et déjà les clashs on vu le jour te dégg naa ñeneen dinañ classe ah. dégg naa am na ñeneen ñuy waaj a ñoo xam ne dañu jël ay concours noonu la des fois am na classe am na classe yoo xam ne baax na. parce que day tax bu la gars yi fàtte woon sax ñu fàttaliku la ne diw classe na <laughs> yee on va écouter un son histoire de détendre l'atmosphère un peu. yóbbu ci sa papa yóbbu nga ma ci sa yaay booyo oh. woon jabaaram ngeen jëra woon. ci sa papa yóbbu nga ci sa yaay booyo. Oh. man yónni naa sama nijaay sur le plat ma la tegal waaw jekk nga taaru nga fanaan ak yow def neen man gisuma dara ci lu dul mbëggee la kóolute kontaan naa bég naa ci yow yaay doon sama yaay doom 17 heures lay xaar jot nga doon saa jabar waaw waaw waaw You are my wife, mi corazón nim jubo waay nga jur samay doom You are my life, you are my everything, you got my legacy, you be my dina mut nga ko ba fii yaay sama vie sama ko de indi yow yow yow sa rewan da net na maama sa kat li si bëgg naa ndaanaan nga ngandam ndaanaan ndaanaan nga ndaanaan ay yow sarak gënal ma sabaay nee na ma may ko photo dafa wees sa xel ne doo ma dil lamiñ bu neex ci fóonañ teel a dàkk nee na bi comme armoire gel parce que yaa di oo et yaa di baax lab ci géeju mbëggeel jàpp kenn soxna si mool nga lool mais doo ma nappa wax yàlla samay soxla su ma jullee sa yéene yi bon yi mënuma jàpp amin moi je connais nulle part à part chez moi je fais danser ta korjek ji korjek dund booba sudee xamadi maa ko tey man bëgguma sa ceeb a laay dunde xaalis samay gunge soo ma bañee ma tëgg la mbéjak riyaa su ten bi ndaanaan nga ngandam ndaanaan Merci beaucoup à Omar Diabel Diop pour le montage. Le cadrage, ça a été assuré par euh, Bruno Mbaye comme d'habitude. Merci beaucoup à Alun Sané. Merci beaucoup à Narapi qui nous ont accompagnés à Nyaritali. Nous avions eu dans la première partie Cool 10 qui vient de sortir son album Like Gay, mention spéciale à lui. Et eh bien des choses à vous, chers amis téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Ce fut un immense, un agréable plaisir ma woo. mooy foo jaar nañ si maire Nafi la Saint-Louisienne. ñii la ñaari dof yi. ñoo àndoon ñëw fii añ dégg naa añ man mais heure bi la leen ñuy liggéey ñun heure bi ñu di añ. mais mère Nafi la nga maquillage aussi lan la jëm barki Rasulillah mère Nafi yaa ngi bokk. ah